mbokki jullit yi fi teew mbokki lislaam mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq di baal ñëpp xaq di ñaan suñu borom tabaraka wa mu defal ñu tawfiq te defal leen ko xam naa daanaka am aaday jël kàddu la waaye li fi jot a jaar rek mënoon nañoo tënk te ñaan ndax sëriñ Abdou Hakim wax naa ko ko léegi mawduu bi mu andi mawduu waadi la ci képp kuy def diraasa ci wàllu ilmiya da nga xam ne al mawduu al waadix la te mooy tem la boo xam ne thème bu jël palaasam la mooy alal ak ni ko nit ñi fonke ak fi ñu ko teg daraja ji alal am ak ni ko mu mujaahidiina yi jàppe woon doon ko liggéeyal mu jël misaal ci mel ne sayidina xusmaan ibnu xafaan radiallahu ardaahu li mu jot a def ay infaaq wala ay nafaqaat ci lislaam ba am ca ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi assuréel ko ne ko loo mën a tee def ci kaw suuf suñu borom tabaraka wa taala duutu ko xoolati mu jëlaat misaal ci xaaruun mi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala andi na ja inna xaaruuna kaana min xawmi muusa fa baqa alayhim bokkoon na ci waa kër yonti yàlla muusa waaye mbewtee ko dikkal ñaar ñooñu yaakaar naa ne wuute nañu ba kenn ku nekk ci ñoom dégg nga ci wax yu nu wolof sëñ bay jaxate wax na ci wax ju am solo nee na xaaruuna alkuna ak koomam mu rëy ma mu am xaw na alkuna ak mbooloo mu rëy ma ko xëw te doonte ay kooma kii mbooloo dafay tax a gën xaaroo na gën ñëpp ak firxaw ne yewwule ndaw daal ne fii jant biy fenke ak fee muy xaloo sowe tey boo saytu woon lépp itam dee nangu kooti ci yow daal ne doo xam ka ngay gën a ko ka ngay xal a gën doo xam ka lay xal a gën te te nanguwoo ko bu wér loo jëf-jëfit bu ko naw ndegam da ngaa jëf a jëf yow nag ba naw la nga jëf seytaane jëf na lu kenn dul jëf te mujj na dew kon alal wasiila la waaye du xaaya wasila la waaye du xaaya imaamu shafii yi rahimahullah nee na ñenn ñi bu fekkee ne boroom alal dafa tisoo li ci ñoom dañu koy wax ne ko yàlla na la yàlla yërëm waaye nee na bu faqiir ñëwee bu tisoolee ci ñoom ñu ne ko bu ñu lor ci sa soj mi imaamu shafii yi ko wax loolu mooy raaye ginnaaw borom alal dinaa wax nag benn xadis boo xam ne dafa xaw a gudd ñu tuddee ko xadisu ahlu saam ñii def mustalaxul ahadis ñii def mustalahul ahadis nga xam ne ñooy saytu xadis wax nañ ne xadis bi xadisul qudsi la xadisul qudsi ki ñu xam xadis dañu wax ne mook alquran ñoo tolloo daraja ñoo tolloo daraja te bari na luy gàllankoor nit luy gàllankoor nit mooy tooñ yàlla sëñ bi Abdou Hakim wax na ko léegi mooy tooñ suñu borom ak tooñ sa mbokkum jullit ñaar yooyu bokk na ci liy gàllankoor nit ñu ngi koy waxtaane rek léegi ci gàllankoor yi ndox mi ñu sant yàlla ndax ndaje mi mel na ne suñu borom tabaraka wa feeñal na ci tawfiix ndax mel na ne ay xolli jullit yu ànd te bëgg lenn daje ci benn barab suñu borom tabaraka wa taala nemmeeku na seen nemmeeku na leen bëtam ma nettali benn xisa ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam démb rek maa ngi koy waxtaane démb ci benn xutbab ajjuma Moussa dafa ñaan boroomam ne ko taw bi dafa ñàkk ñëw maral wi metti na lool ñëpp tiit nañu daal ko ne bàyyi ma yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sàbba ñi ngi moolu nit ñi ndax ñàkk taw bu amee bàyyi ma yi dañuy moolu nit ñi ci seeni bakkaar Abdullah ibnu Abbas moo ko Abdullah ibnu Mas'ud jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi ci xadis bu wér ci muslim ak buxaari yi nee na ndox du manqué benn yoon amul benn taw bu ëpp moroomam benn nawet bu ëppale moroomam ndox amul yonent bi salaay salaam nee na ñii dañuy tooñ yàlla tuxal ndox ma yóbbu ko ci beneen gox waaye ndox mi ni mu daan wàccee ci at yu njëkk ya naka jekk noonu la ndox di wàcce xadis bu wér la ñëw na ci saxiixul buxaari yi ak muslim abdullah ibnu mas'ud ak ak abdullah ibnu abbas ñoom ñaar wax ji génne nañu ko ci saxiixul yi ak yontu yàlla Moussa def ne boroomam nun julli nañu ñaan nañu baaw nañu naan def nañu lu nekk te ndox dikku yàlla ne ko daa am ci seen biir koo xam ne tooñ na ma ñeen fukki at yoo xam ne daf may tooñ te du ko tuub Moussa woowa bani Israil ne leen ki tooñ yàlla ñeen fukki at xam na ko nit ku ne xam nga sa bopp na génn dëkk bi ndax yàlla sotti ndox bi kooku reconnaître ay erreur am ba guddi mu beru ci barab wéet toog jàkkaarloo ak boroomam ne ko maa la tooñ diirub ñeent fukki at damaa bëgg yow mi nga xam ne yaa ma bind yaa ma moom jéggal ma sama bakkaaru ñeent fukki at yii yu kenn yëgut lu dul mag yow ci guddi googee taw na ba inondation am yu bari ci biir Israël Muusa xëy am li ñuy tudde ad dahsa fa saala Muusa rabbahu mu laaj ko ne ko li ma nasaltal matar yaa sal jalali wal ikram lu tax nga wàcce ndox mi buur ne ko kii defoon bàkkaar diirub ñeen fukki at weet na ci barab tuubal na ma jéggal naa ko laajut nga koy xam laajut say morom di ko xam loolu mooy sutura suñu borom tabaraka wa taala mbokk yi ci li may tëjee ci lu gàtt mooy askan wi askan wu màgg la kii njëkk doon wax léegi doon wax ci wàllu agriculture wala agronome loolu xam-xam bu dund la xam-xam bu dund la xam-xam benn bu jar a xeeb amul lu mat xel la lim doon wax te jël contact yi te jéem koo jàpp bu baax askan wi dafa laaj ci yépp anam boo dee médecine lu mën a doon jërëtut ñi di ko jéggaani fenn war nañ koo mën a am ci suñu biir Cheikh Ibra nag daa waxoon lu am solo dane woon tëgg du ma ko nawee caam day dugg ci biir mbaar mi tëggu ëllëer ma xool bay mu baax sant wi baax na inna awla naasa bi ibrahima lallazina tabi'uuhu ñi gën a yey ci yontu yàlla ibrahim mooy ñi ko topp sant wi même buñ ko amee dafa war ci nun li war ci nun mooy fexe ba kenn ku nekk na nga war a mel nga mel noon foo taxaw fu nekk ñu xam ne yow mii ci askan wii nga bokk ibnu xaladuun moo ibnul batuuta ñoom ñaan ñépp ci seen rexlataa yi ñu def wax nañ ne ture cosaan li mooy ahlu sunna waxtu wu ñu leen niitee ba sunna manki ci ñoom kum ci doon ci nun na vérifier boppam te xool te xam ne moom manki na fa mu bokk dëgg la dajale alal ji baax na defar yi baax na waaye defar suñu bopp lu jiitu mooy li gën nit ki bu defaree boppam mel ni mu war a mel lenn lu ko jomb ci àdduna amul lenn lu ko jomb ci teraanga yi suñu borom amul sëñ Muntaxa maa ngi fàttaliku bi fi sëñ Murtala nekkee mas naa def benn xutba bu yàgg mu wax ñaari aaya dafa ne wala xadd karam naa banni aadama balaa yee ja jeex mu ne suñu borom mbooleem xeeti teraanga yëpp jox na ko nit waaye ka ko gën a yeyoo nag mooy ka gën a ragal yàlla inna akramakum indallahi atqaakum gis nga teraanga askan wu ñu koy moomale dëkku fa gis nga lu mën a doon ci àdduna daa dab nit ki waaye indaaliwu ko bu dee alal xam-xam lu mën a doon da koo dab waaye indaaliwu ko nit ki lim indi mooy juddoom ak personnalité am bi sallallahu alayhi wasallam nee na yuwlidul mawludu ala al fitra nit ku nekk dañu ko jur ci fitra moom la ay waajuram ñoo koy defar mu baax wala mu ñàkk a baax kon mbokk yi ñu ngi ñaan suñu borom jotaay bii yàlla na ko yàlla gërëm yàlla nañu ko yàgg a lépp lu ñu ci def yàlla na ko suñu borom gërëm defal ñu nawetu jàmm bu ñu muurloo ci dara jëy sëriñ bi li may jeexale nag mooy xew-xew ni ko sëñ bi waxee léegi rek alal xëcc na ngor yëpp dindi na valeur yëpp tax na kenn ku nekk yaa ngi def lu ne lobby yi bari na homosexualité yi ñu ngi ko fiy wax lu ne ñu ngi koy wax am na ñoo xam ne ni ki bërki démb gis naa benn déclaration bu sëriñ Amsatou moom sëriñ Abdoul Ahad def di wax ñoo xam ne dañuy ay daayira yoo xam ne dañuy sant sëñ tubaa ñu leen di criminaliser ak di leen ñàkkal fayda waaye gis nga sëñ tubaa ci boppam ci lay jeexale way wu am solo daf maa marke dafa wax ne fa kullu man xaddasani fi xilliya aanastuhu xarban amaama rabbiya képp koo xam ne jóg nga dal ci sama kaw wala ngay waxtaane lu yàq sama mbir sëñ Tuubaa nee na porté naa la plainte ci kanam suñu borom tabaraka wa taala déclaré naa la fa guerre loolu jër ta waxal jër ta xeexal gis nga porté plainte boobu képp ku jóg ngir yàq mission wu sëñ Tuubaa ci kaw suuf mission wu sëñ Tuubaa ci kaw suuf malaikatul muqarrabina dara ci sa kaw léegi nag la war taalibe bi mooy taalibe bu nekk fa nga war a taxaw nga taxaw fa mel na nga war a mel jàpp ca la nga war a jàpp sàmm sa diine ak sa ngor maa ngi ñaan suñu borom mu samp ñu ci ak njub ci taalibe samp ñu ci sunna su dëgër ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxuk Seexul Xadim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kenn ku ne ñu ngi lay nuyu sa ñu lay nuyu sa ak sa sant di di di fedd di sant yi ñu fi sant ndax loo fi war a wax rek. wax nañ ko kon nag cant rek moo ci war ah yal nañ ñu teg ci yoonu cant ya ñu gërëm ku nay sant nu dina sant dañ dinu ko nangul tam yàgg lool ah, ah, allah ah, kii jiite ànd defar la paix li mu wax moom wax ju rafet la wax ju tegu ci yoon la wax gannaaw si loolu itam ñi nga xam ne ñoo cosaanoo la li ma leen di wax dénkaane boobu sa eh, Abdou Asama ci li net nettali sëñ bi doon ko dénk fi ñu ma bàyyi njaay laa fexe ba bu kenn dox sa diggante sa borom loolu dong laay feddi loolu doy na lépp loolu moom doy na lépp ni ngeen doolee góor go ba xam ne lii nga xam ne moom la fa maam yi jiwoon fexe leen bépp pousse bi bu mu réere ci yéen te la ko dale ci Moustapha Touré naar ba jaam ti Matar Umaane ba fii nu toll askan wi kenn mosu see xam ku def njombe loo xam ne lu lu àddunay wax la ba mu dox ba egsi ci nun ñë ba egsi ci yéen kon nag nun ñëpp nañ bokk laxasaayu ba fexe ba pousse bi buum mu réere ci nun mukk li li li sëñ ma dëkk mi wax képp ko bokk ci askan wi na nga fexe ba foo nekk na nga ko na nga ko doon royukaay allah ji Touré nettali na ma ne ma euh, jamono yi sëñ bi mujj bi bi mujj yi nga xam ne sëñ bi bi mu bëgg a ñëw Touba ne sëñ Abdoulaye sëñ Abdoulaye Touré ko ko nettali nga xam ne boobu sëñ bi tëju na ñëpp sëñ Abdoulaye Touré ñëw yëglu ñu ne ko ah sëñ bi dafa tëju ba ko ba ko ba ko sëñ bi yégee ñu ne ko sëñ Abdoulaye Touré de moo mu ne ah mu ne kooku bàyyi leen ko bu ñëw ndax ñooñu ñu ñuy rus lañ ñu ñuy rus lañ lu ba baat boobee baat baat bu baat bu am solo la la la waral baat boobu kenn ku ne na nga fexe ba bu ko yàq mag ñi moom ñi fi nekk ñi ñiñ fekk seenu tànde li xam ci ñoom mooy dunde seenu ñaq jàng alxuraan jàngale alxuraan dimbalee ngir yàlla jël àdd ya yóbbu Tuuba mag ñin fe ñin ko fekk seeni jamono nun loolu lan xam si ñoom te yaakaar naa du nun ko xam kon nag ñun képp ku ñuy tudd di tudd lépp na góor góorlu ba foo ne na na nga fa doon royukaay man daal loolu rek laa leen di déggal sama borom nag lépp ci loxoom la ne noo ko koy ñaan jël nañ ci dimbale ci loolu teg nu ca yoon wa sàmm nu bañ egg te am nga yóbbaale ngërëm ci daraje yonent bi daraje Xaadimu Rasuul noo ngi baal ñëpp àq di baal ñëpp àq yonent borom boo la jégal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuy yéen ñëpp bokki julli di fi teew bàyyiwuñ kenn ci turu sëriñ Serigne Cheikh mi nga xam ne moo ñu yebal ñu teewal ko fi ñu leen di sant bu baax ci jëf ju tedd ju rëy ji di yóbbaale ci nuyoo bi sëriñ Abo mi sëriñ Modou Rokhaya ak sëriñ Abo sëriñ Issa bokk yi nekk ci baas bi yëpp sëriñ Moustapha kon yaa njaboot gi yëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu di sant bu baax di rafetlu jëf ji ndax bokk yu daje sant yàlla jàngal xuraan bernde duxu bokk jëflante lu baax ba ngoon jot dara fayu ko kàddu yi nag day gàtt lool ndax li ma a wax lépp borom xam-xam yu jiitu wax nañ ko liñ fi jot a fekk sëriñ ab Hakim mi ñu fekk muy daaneel ak ñi fi jaar ak sëriñ Ahmad Dikke mi nga xam ne moo tëj lu mat a wax ci xam-xam ci diine ci laabire wax nañ ko kon ñun moom kàddu yi ñetti kàddu lay doon daara du ci génn can du ci génn santante rek ndax euh, jëf ji dafa rëy ci rafet ci ci biir lañ bokk ndax euh, lappe Touré kenn mënu cee génn sëñ Abdou Latif gannaaw ñun nag bu sëñ Abdou Latif amutoon duñu am ci biir njabootu ci biir sëñ Abdou Latif lañ bokk te sëñ Abdou Latif kenn mënu koo génne ci lappe ndax ndaayam Touré la sant kon bis bi kenn ëppalewuñu ci ñoo yéene ko bokk waaye nag euh, lépp lépp benn la bu ñuy jëfee rek yóbbaale ñi waaye lépp ñoo ko bokk lépp tam ñoo ko ànd jëf ci mat na rafet na sëriñ danga koy rafet bu baax a baax ñu ngi sant bu baax ñaan euh, suñu boom def ci ndam ak tawféex ba bàyyi fii seen kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo leen jiite ñoo leen wommat gone yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi itam suñu borom kàttanal leen dëgëral leen musal leen ci ndog yeeg pakk-pakk yi li seen i xeewal dolli seen sutura ba yéen ji ñu am ci bis bi ñu yóbbu ko fañ ko bëgg a àgg fañ ko bëgg a yóbbu li sëñ Mame Ball doon jëf ju rëy ji muy mbaar mi ñu ko fi jëf ci pësteef ak ci yitte ak ci sutura ba mu ba tay ba tax tey ñu nekk ci biir mu taw ba séwét ca yàqu dara ci jotaay bi loolu jëf la ju joo xam ne yàlla gis na ko ñoom ñi ko def yàlla na yàlla fay yàlla yokk yàlla yokk seen kattan dëgëral seen i taxawaay ba luñ man bañ man lu ko ëpp ndax xam ne luñ man xam nañ ne luñ man danañ ko def ci dëkk bi ci dëkk bi lu ñu fi def du pertement ci ñoom yàlla na leen yàlla sàmm defal leen tawfeex ñoom mbooloo mi ñu ñànk bis bi yëpp ba yéene ji ñu ci am suñ ko bëgg a ñu mu àgg fa ci jàmm borom musal leen ci ndog yeeg pakk yeeg gàllankoor yi adda yeeg yàq ba ànd yàq mbooloo yëpp ba yéene yu rëy yu naal yu rëy yu rafet xalaat yëpp ak ci jàmm ak Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf ab gourmet la man maa doon seen chauffeur maa maa fa doon seen chauffeur bu ma bu ma bu ma demee ba génn ñëw toog ci biir yi génnee samay xasaay di ko jàng ndaw si wax chef de service ne ma na ma wax bu ma fa jëlee loolu neexu ko kooku wax ma ne ma ah sëñ Moussa ma ne ko Mbàkke mu ne ma ah soxna si kat nee na xasaay ji ngay jàng ci bureau bi neexu ko ma ne ko baax léegi bu ma bu ma génnee ne ci moto jàng sama xel bu ma ñëwee ci bureau bi dañ coomee xasaay bi weer wi ma ko waxee ba muy laata dellu déglu bu baax moom mu jotee ak ñi ko embauché woon léegi ñu ñu mujj dàq ko ne ko nag liggéeyal parawi ba paraweem di laata jeex ñu indi lettre bu jóge Amérique ne bureau bi dégg dénk nañ ko Abdou Mbacké Abdou Mbacké te ma ma ma Maam Mor jur baayam lettre jóge am direct ne bureau bi dénk nañ ko Abdou Mbacke jusqu'à nouvel ordre Abdou Mbacke moom maam moo jaara ju bàyyam mam mam ma ma joxu ma ma joxu jur ndeyam keroog ba muy patienteeg moom sari eh, weccee ay dossier ndef si da doon jooy ba mu génnee Abdou ne ma demal ci bureau am fa mu jàngal ma fa ay xasaat fa ndaw sa doon toog fa laa lal sama basang julli ñaari ràkka jàng fa Matlabul Fawzayni ak yeneen xasaayit macha allah macha allah macha allah jëf kon jërëjëf Baye Moustapha daaw nga yaramu ñëpp jërëjëf ci loolu am na ñaar ñoo xam ne bëgg nañu ñaanal leen ndax nëgën si daaw ñu ngi àndandoo ñun jataay bi te yàlla dogal ñun jële fi muy soxna maam Awa Touré ak ba ak bàjjan Jobbe Touré ak doomi Ndey Fall ji ñoom ñëpp ñu nga ànd na ñun jaaw jotaay bi te ren yàlla dogal ne ñu génn àdduna kon yàlla yàlla yërëm leen xaadim Diop sëñ sëñ alaaji day def a ñaar numéro bi joxe rek bu ko defee bàyyi ñu def ñaan waaw ah, maa ngi leen di nuyu baax da di leen jégglu xam naa ab yónnente la boo xam ne mënuñu koo ñàkk joxe ñi ngi ñaan képp koo xam ne si ne am nga yéene yi bokk ci association bi ñu fi doon lancé léegi muy association ànd defar lapp bi nga jël sa téléphone wala nga jël sa bic ak sa fooy bind numéro yi ñooy ñi nga xam si ne ñoo nekk ci bopp association bi képp koo xam si ne bëgg nga cee bokk wala nga bëgg sa doom bokk ci wala nga bëgg sa soxna bokk ci nga jël numéro yi bu dee numéro Mame Balla Touré mi ngi nekk 77 910 85 90 mooy numéro bi mu wuyoo mooy numéro WhatsApp am képp ku ko ci woo di nga ko jox ku ko envoyé message dina ko jot bu dee beneen numéro bi mi ngi nekk 77 24 41 219 24 41 mooy numéro Galas Amina kon numéro yi mooy numéro yi nga xam si ne képp ku bëgg a bokk ci association bi ci ngay jaar ñiy soññ nag ñi nga xam si ne bindu nañ ci ren ngir yàlla ak jëm ñu mbokk gi ñu boole ñu fonk ko lool te xam ne comme niñ ko waxee woon jërut guddalaat mbooleem koo xam ne bokk nga ci nga fexe ba sa soxna bokk ci tamit ndax dana am solo ndax soxna yi tamit xamante wuñ bari na fi gaa yoo xam ne si ne xam ma seeni soxna te loolu jaaduwut kon bokk gin ciy bokk daje gi ñuy daje day waral xamante bi gën a yomb daje bi gën a yomb lépp gën a yomb soxna Mame Bousso Touré daa am yóbbante bu mu yóbbante fii tamit ngir ñu soññal ko soxna yi nee na mi ngi soñ soxna maam jaara yi nga xam ne dañoo sant Touré ci daayira maam jaara bi nga xam ne moom lañ taxawal ñu gën cee góorlu ndax ren jii nee nañ biñ ñu dajalee am na ñaar fukki junni ak lu topp kon nee na mi ngi soññ képp koo xam si ne maam jaara nga tudd sant Touré ci daayirab maam jaara bi mi ngi leen di soññ ngeen gën cee góor góorlu te gën cee jàpp ndax lépp liggéey Sëñ Tuubaa rek la maa ngi jéglu bu baax nag kàddu yu guddi yéeg yu bari yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon Baye Moustapha mën ngaa def ñaan ñu kii sëñ Abdou Lahad jërëjëf ci wax wax ji na lool jërëjëf jërëjëf sëñ Mame Mor jërëjëf ayo tàll leen def ñaan ayo tàll leen ñaan na ñëpp wax amin na ñëpp wax amin te fas luñ bëgg amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin ba déwén nag jàmm kenn bañ a manqué jërë ngeen jëf